24 infos, l'information sur mesure. man maa ngi dugg te Alioune Baldé la maa ngi joué poste 1 ak 2 wala 3 des liggéey rek liggéey rek barki alxuraan karim dañoo liggéey ba tollu fii bilaay un an décembre daaw ba léegi ñu ngi liggéey barki yaa mais dañuy sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax ba yàlla may ñu ndam doo alhamdulilah rabbil alamin voilà ban instant CBA mu ngi demee ci biir ci biir match prolongation bi entre joueurs lan ngeen lan ngeen waxante pour ñëwaat ci match bi. parce que xam nañ ne match bi lu mu métti métti ko gagné parce wax na quelque soit alpha nañ lucide nañ lucide si match bi bañ a def ay perte de balle concentré wu si match bi bañ a génn si match bi mais match bi ñun suñu joueurs yi suñ suñu bopp xamoon nañ ne à tout moment mun nañ gagné match bi ah rek maintien maintien ndax boo ñëwee dañ fi fekk ay réalité dégg nga dafa am boo ñëwee da ngay maintien rek. après yeneen année nga xool naxa naka ngay gérer ak ñoom. da ngay des chef da ngay des presse fa wala feneen. yàlla baax na yàlla baax mën nañu wax ni am nañ satisfaction. parce que liggéey bi dafa yàggoon dafa metti woon donc comme yàlla dimbale nañu ba ñu yëg première division ba pare jël coupe bi parce que suñu objectif du kese dañ si booloon coupe bi parce que certes yéegoon nañu mais jotuñu woon am trophée donc ren dañ ñëwoon waxoon dañ ñëw ni dañuy ñëw pour yéeg. pour le trophée bi yalla dimbalé nak alhamdulilah rabil alamin ba yegg nañu jël nañ trophée euh gis nañ ko SPA durant tout le tout le tournoi euh da doon yéeg en tam en tambour battant donc aujourd'hui tay c'est finale du contre GBA lan moo ko def lan moo def différence bi. lu def différence bi mën naa job liguey parce que sur le plan du jeu lan moo def différence. dégguma sur le plan du jeu. waaw la mo def différence bi même limay wax moy lan leen tere ñu basket manam loolu yëpp si cadre physique bi la ñun ku ñu xam Parcelles xam ne ñun dañuy physique donc loolu lañ leen doon tere ñoom nañ dem nañu dem nañ dem plan physique ba vingt ans ñu épuisé leen ñu gañe leen waaw taxawoon yi ma jël même chose même discours ñun dañul sud boo ñu jëlee boo ñu yóbbee 10 points dañuy jàpp ne war nañ la mën a gañe donc même discours bi lan la gars yi temps bi des na dañuy joué